أعوذ بالله من الشيطان waxat li mën a fexal awtan asalaamaaleykum mbokki réew mi rawante naag ndaw ñi rawante naag ndaw ñi eh, daanaka kàddu yi ma fii ñoom lay gën a concerné di leen fàttali rek ni suñu borom bi mu nuy indi fii ci planète bi daf ne daf nuy seetlu ba xam bu jooy jotee wala bu ragal jotee ak niy jéem a settantal li nga xam ne volonté divine lay doon li jóge ci moom ak li nga xamante ne bii ci nun ñi la jóge radiallahu anhu cheikh abdul ahad daana faral di wax benn aaya man jaa bil bi fa min allahi wa man jaa bi sayiati fa min nafsika bu rafetee ci yàlla la jóge waaw bu fekkente ne rafetul nga xool sa bopp yow mi nga xamante ne bii yaa yaay jëfkat bi waaye ci wàllu adduna nii li nga xamante ne bii wàllu adduna moo li ko demee lu demee ni sport bi moo tax may wax ak sport bu mën a doon waaw dëgg la talent dina fa nekk waaye chance li ñuy tudde chance yi dina fa nekk waaye fi ñuy xamee jàmbaar mooy bu amee victoire mbaa bu amee defet waaw bu amee victoire nan nga wa yan comportement nga war a am yan attitude nga war a am booy bëgg bëggal ndànk waaw booy bëgg da ngay bëgg ndànk ndax mbëgg fi nga jamono bi ngay bëggee boo ci jógee leneen mën naa xew loo xam ni doo ca doo ca mer xañ na waaye doo ca bëgg léegi loolu victoire tax ñuy wax waaye bu dee défaite itam booy mer meral ndànk defet jarul mer li tax defet jarul mer bu fekkente ni ci wàllu sport la moom defet jarul mer waaw ndax sport moo tëdd noonu waaw te ma xalaq na sama wal ardo ma bii laibin itam ñu koy fàttaliku waaw dëgg la sport yi xew ñi koy def eh, dëgg la xañ na jubluwuñ ci fa sax métier lay doon ci ñoom rawante nag li ñuy tuddee football waaye ñu bëgg rek eh, dakaafu xale yi ngir ñu dal en cas de victoire en cas de défaite ñu dal waaw xañ ni xañ ni xam ni sport sport la loolu moo tax may dàkkaas xale yi ne loolu mag ñi tax ñu may wax ndax mag moom mag moom euh, defe naa ni boo koy wax rek bu dee ku gëm boo koy wax wax ko lu jëm ci yàlla wala lii waaye doo ko wax lu jëm ci sport wala yu dëgg naan waaye xale yi nañu kii rek waaw nañu dal lu man di xew nañu dal bu ñu amee victoire bu ñuy bëggit nañu bëgg ndànk waaw ndax di nga gis koo xamante ni bii day am victoire di ca feeñal mbégte ba mbégte ma far jur loraanga loolu toujours ñu gis ko gis koo xam ne itam day am defet di ca wane aw naqar ba mu jur loraange te yooyu yëpp dara jaru ko fii euh, faman yaamal misqaala zarratin xayran yarax bu ëllëgee waman yaamal misqaala zarratin charran yarax euh, loolu daal laa ne woon dama koy fàttali xale yi bu ko defee rek euh, lu man di xew ñu ànd ko dal bu ko defee rek taxam fii moom waaw noonam adduna dafa gàtt daal dafa gàtt te itam nag bu fekkee ci wàllu njuumte la jamono bu nek ñu gis imam bu jum buy tari ci jakk bu ci àgg mu jum ñu ko subhanallah gis ku mëna war fas waaw nga xamne day gawar lay doon loolu borom xam-xam yi ñoo koy wax way bi day day am bis mu daanu ci fas ci mëna war ñi nga xamanteni bi sax ay cuisinier la ñu gis di ngeen di gis yenn say yi di ñuy maîtriser li ñi def lepp lepp yenn tay yi nga gis ku dag loxom waaw jublu ko ci waaw di nga gis itam ko xamanteni bi ñi nga xamante ne bi dañuy liggéey ci wàllu ndawal lu demee ne yàpp wala yu demee noonu daggukaay bi maanaam couteau bi paak bi wala yu doon dem ba mel ni luy maax ñu koy daas pour mu gën a ñëw yooyu yëpp dafay am waaw boroom xam-xam bi mooy juum imam bi mooy jamuj paaka dafay li ñuy wax maax daf koy def ñu koy ñu koy daas pour mu ñëwaat eh, bu ko defee yooyu yëpp dafay am dund gi moo demee noonu dund gi nii dund nii suñu quotidien mooy demee noonu waaw nox nox war lay doon bu defee nag euh, bu bu ñu dellu fee rek ci njàngaleem ku tedd ki rek waaw njàngaleem ku tedd ki rek fexe ba suñuy xol jamono bu nekk istixfaar istixfaar lu am solo la astaghfirullah adada al mustaghfirina ma yastaghfiruhu wala astaghfirullah ma lahat sabahu wa ma taghannati tayru fil asani bi nagam istixfaar lu am solo la jamono bu nekk na ñuy jéggulu rek waaw rëcc rëcc yi ak di yenente lu baax rek ak di ko waxante ak di ko doxante di ko séq waaw Euh, yéen ndaw yi Sénégal daal muy góor ñi ak jigéen ñi yooyu laa leen di fàttali waaw di ko tàmbalee nag ci ñi nga xamante ne bii nooy seen jawriñ tey baloo ak ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.